ci mm. euh, mbir moomu nga xam ne euh, mi ngi xew euh, Ousmane Sonko defe naa ñu bëri ñu la ràññee di ngay faral di wax ci moom lu bëree bari jamono ji gis nañu la nga xam ne nii tegu na ci kawam ba daanaka am keneen koo xamante ne nii moom la ñuy xaar à ce que mu bokk ci élection présidentielle yi. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko moom bi ay mbiram fi mu toll actuellement boo ko doon jàngat lan nga ci mën a wax. ñaanal ko yàlla rek. Mm-hmm. Ousmane Sonko ay mbiram li ma ci jàngat ñaanal ko yàlla mu fekkee tatal. kese lañ koy ñaanal ñaanaluma ko leneen lu dul loolu mu yàlla may ko wér ak fekkee tal kese loolu laa koy ñaanal. Mm. mais dina bokk du bokk kooku mënuma toog fii di ko wax. Mm. nañ ko ñaanal yàlla kese. d'accord waaw du ma sori ci mbiru Ousmane Sonko. am na am na ñu jàpp ne xëy na fi mu toll jamono ji ay mbiram dafa xaw a compliqué ci booram ak euh, li ma doon wax léegi rek ñenn ñu jàpp ne kii euh, xëy na nguur moo ko jubluwul ak yu demee noonu moom Ousmane Sonko. <laughs> lan ngay xalaat ci booy toog yenn saa di dégg wax yu mel noonu. am Ahmed man yooyu duma ko déglu sax. Mhm. yàlla xam na ni man duma ko déglu. yàlla xam na ni billaahi wallaahi watallaahi quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp dañu nekk ci télé yi di ruubee. 99 pour cent yëpp dañu nekk ci télé bi di ruube mais di dina bokk ak du bokk ak dafa découragé bàyyi leen wax yooyu ngeen di gëm di ko dégg. gis nga kii di ma ko waxee woon nee naa la Ousmane Sonko. araw bu suñu borom araw la ba teg ko. lan moo des ñu togg ko def ci laax mi ñëpp lekk. Mhm. Ousmane Sonko du ma naa bàyyi noonu rek. ah recours dugg na de. recours dugg na ci candidature am ba tey jii. naa bàyyi naa bàyyi noonu rek yàlla baax na yàlla mi bari na miracle mun na mun na nekk sax candidat. Mhm. waaw yàlla bari na miracle. waaw yàlla baax na daal ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan l'essentiel daal. jomaay génn na jomaay am na obstacle yu nekk ci kanamam. Mhm. am na obstacle yu nekk ci kanamam mais yàlla baax na. ah boo nee obstacle mbaa doo tiital ñenn ñi. déedéet tiitalu ma kenn tiitalu ma kenn xam nga xam nga euh, Ameth. Mhm. gis nga yàlla yàlla. ndoxum taw la yàllam ci misaal ndoxum taw la nga am kër goo xam ni day dugal ndox nga am kër goo xam ni nijoor càmmoñ kanam ginnaaw day dugal ndox yi mhm. nga nekk benn nit yépp nga bëgg a fattandoo ñetti bunt yooyu yépp mhm. mënta nekk d'accord ce que dégg sama wolof yi ma la làkk bamtuwaat ko waaw te ma ne yàlla ndoxum taw la mhm. nga am kër goo xam ni ñeenti côté yépp dañuy dugal ndox ñeenti côté yëpp nga bëgg leen fàttandoo ci même seconde bi. Mhm. mënta nekk. d'accord est-ce que dégg fu ma waxee. waaw kon jeex na. voilà donc ñoom itam. Euh, nga xam ne ñoom ñoo fa fare ci booru Pastef ku ñuy mm. xool euh, ci seen doxalin daanaka dafay jaaxal ñu bëri parce que euh, malgré la ñu teg ci seen kaw malgré la ñuy teg ci seen kaw leader boo xoolee ñoom ci seen i mbir ak la ñu war a nekk ñu ngi ci ba tey mu mel ni ñoom dañoo jàpp yaakaar ni ak lépp lu mën a xew ñoom mbir mi dafay daal di aboutir gis nañu actuellement ñuy wax ndam diw dina bokk am du bokk Ousmane Sonko recours bi lan moo ci mujjee ñoom ñu ngi préparé le 14 bi levée de fonds ngir dajale xaalis boo xamante ne nii Euh, pour campagne la. xam nga waa Pastef. Hmm. ñu gëm yàlla lañu. ay du ma ne ay jullit pire. Hmm. parce que am na ñoo xam ne bokkuñu diine. Hmm. mais daal xam naa ni ñu gëm suñu borom lañu. waa Pastef ñëpp ñu gëm suñu borom lañu. lépp lu am rek mu ngi tege suñu loxo suñu borom lu mën a am nag mu ngi tege si suñu borom. Mhm. yàlla pare na ba pare yàlla pare na saa bu ne loolu laa di wax yàlla pare na. Mhm. la tax ñoom ñi def loolu ñoom ñoo ko xam. Mhm. yàlla moo ko xam mais daal xam naa lu mën a am moom. xam nga keroog ci biir émission bi dama ne surprise dina am am fu ma taxawee ne surprise du am. xam naa ne ku amul dégg-dégg bu dégloo émission bi dana yaay Adama fii dafa ne surprise dina am fii mu ne surprise du am. mais ñaar ba tey maa koy dëggal surprise dina am surprise du am. loolu xaw ma nag xaw ma nag nu ngeen ko mën a déggee. man ni ma ko mën a déggee man ni ma ko waxee. Mhm. yàlla daal pare na. Mhm. pare na ñi nga xam ne ñu yaakaar ni surprise dina am. Mhm. ci seen côté. surprise du am ñi yaakaar ni surprise dina am ci seen du am seen côté. surprise du am. d'accord xaw ma nag dégg nga sama wax boobu wala déet. d'accord waaye wax ñàkku nag ñi koy déglu dinañ xam sama wax fu mu jëm si ñoom ñoom ñu ngi teewlu en tout cas mm-hmm. euh, bu baax a baax a baax a baax donc tey ñoom ci li ma doon wax léegi daanaka dañoo taxaw rek ci benn taxawaay mooy ñoom ak lu mën a xew ñoom jàpp nañu ne seen projet boobu dafay aboutir que mu nekk Ousmane moom mooy dem wala mu nekk keneen kuy dem mais ñoom jàpp nañ ni ak mu doon euh, Ousmane ak mu doon Diomaye ak mu doon ku ñuy wax euh, Cheikh Tidiane Dieye mm-hmm. li leen leer mooy ñoom ba fi mbir yi di mujjee ñoom mm-hmm. ñooy ñoom ñooy am ndam ci ci ci ci ci ci ci li ñu nekk ci projet bi. waaw gëm nga ne ndam loolu noonu dina am. loolu moo tax ma ne la yàlla ndoxum taw la loolu xanaa déggoo li ma la wax Ahmed nee naa la yàlla ndoxum taw la da ngay fii di munoo munoo fatt fii ñoom ñëpp di duggandoo ndox nga bëgg a fatt fii fatt fii fatt fii nekk. Hmm. boo fattee fii dem di fatti beneen ba fi nga fattoon ndox mi moo koy fëlaat jeexar bi ko duggaat si biir. Hmm. gis nga euh, Ahmed. Hmm. nañu ñaan yàlla di julli si yonent bu tedd bi mais ak lu mën a am daal. nañu ñaan yàlla rek. Mhm. li ngeen di gis ngeen ko gis te du yàggatul dara. d'accord waaw d'accord alors ñu jëm ci ay élections euh, présidentielles. ci euh, weer yi nga xam ne nii ci lañ jëm. Mhm. Euh, jamono ji daanaka mbir yi xaw na jaxasoo. Mhm. te bu ñu fàttalikoo réew mi jóge na ci période yu xaw a sombre. Mhm. ci jamono yoo xam ne jàppal bàyyi jàpp nañ diw yóbbu nañ diw ak yu demee noonu. maanaam ñu toll ci moment boo xamante ne daanaka. Euh, am na ñenn ñu njortu ni xëy na bu ñu deflu attention par rapport ak li nga xam ne moom moo di xew mën nañ delluwaat ci boobule situation ndax tey ji nii mën nañu gëm ne bu ñu deflu attention ci moment bi ñu toll nii xëy na musiba mën na amaat wala fii lu si jëm gis nañu sax ñenn ci borom xam-xam yi ñoo xam ne ñu ngi jug di artu ne élection ba fi ñu toll nii gisaguñu élection am am ñenn ñoo xam ne euh, ñu ngi wax ne bu ñu deful attention dëkk bi mën na dugaat ci ci ci jéye gis nga Mouhamed ñi wax loolu wax nañu dëkk li tax may dëggal seen wax mhm. dafa am ñaari taxaw mhm. benn bi dafa taxaw élection am dina am mhm. benn bi mu taxaw yëf yi day jaxasi ko day nduru leneen du du duma ko wax ci caméra duma ko wax ci caméra mais bu ñu fayee caméra yi dinaa la wax lu tax ma wax la loolu gis nga li may wax rek may ñaan ñu mën a wax nañu wax mm-hmm. ñi mën a artu nañu artu mm-hmm. parce que li olof naan xooma fagaru balaa ngay lakkale mm-hmm. nit da ngay da ngay fàggandiku gis nga li ma gis waxoon naa ko ci sama vidéo ba lay nee naa di ngeen gis lu ngeen musta gis fi Sénégal ñi ngi ñaan nag ku mën yaa ngi ñaan mën tam ñu ngi ñaan. Mhm. mais ak lu mën a am nañu artu. Mhm. te artu moo gën àtte. artu moo gën àtte. Mhm. nañu artu suñu artoo amaana dara du am mais suñu seetaanee nii ah fi mu jëm baaxul de. waaw suñu seetaanee nii. fi mu jëm baaxul te dafa am lu bari lu ma gis ci tali bi. suñu artuwul liggantewuñu ñëpp dal xol yëpp dal ñëpp dal. li nar a am baaxul. te di ngeen ne yaay aadama waxoon na ko li tax man so du ma bëgg di wax dafay am lu ma suñu borom di wan daf may wax bis sàngam day am dafa am lu ma suñu borom di wan xamal ma ni dina am bis sàngam wala weer sàngam wala ci biir semaine bi du lu ñuy wax nag mi ci tali bi nag surtout ci tali bi surtout ci tali bi nañ ci bàyyi xel ci tali bi te nañu waxtaan ak ñi ñu war a waxal ñu ñu ñu yolomal fiir gi mhm. parce que nii ma gisee nii dina metti trop sax man maa la ko wax. maa la ko wax fii denc ko toog. d'accord euh, bu bu ñuy wax bay wax euh, yolomal mënuñu euh, ñàkk a wax ci ki nga xamante ne nii moom di njiitu réew mi. ak euh, taxawaayam jamono ji euh, defe naa bëri na nit ñoo xamante ne euh, ñu ngi ci kaso bi ak lu ni mel ñu bëri sax doon ñaan ci période bi nga xam ne ci lañuy ñuy jóge rawatina décembre bi mm-hmm. doon xaar à que mu libere ñu bëri ci ñoo xamante ne jamono ji jàpp nañu dañ leen xañ seen ay liberté mm-hmm. donc tey jii mm-hmm. lan ban taxawaay tey jii nga doon boo fekkoon ne da ngay conseil président bu ma ko mën a waxee noonu ban taxawaay tey jii ngay xaar ci moom waaw mooy ni ma ko waxee am rek temps yee ñu tourné woon vidéo bi dama ko wax Vito. Mhm. ma ne ko kii ki kii kii tax ñuy jàpp di yóbbu. Mhm. kooku buggul mag Sall. Mhm. ndax euh, doomu jaambur yi ñuy jàpp dañoo am famille. te soo jàppee kenn am nga téeméeri noonu ci biir famille soo jàppee kenn ci biir famille téeméeri fam doomu aadama yoo xam ne ay mbokkam lañu ay soppeem ay xaritam. def nañ la noonu. te li ko gën a yokk noonu moom loolu bokk na ci mhm. nañu bàyyi ñu ñuy jàpp te yàlla tax kaso yi fees na mhm. lekk bi demeetul noonu mhm. gis nga Ahmed dafa am benn vidéo bu ma sama mag yónnee benn bés boobu daf ma fekk maa ngi mbuur xaw ma maa ngi waalo daf ma yónnee benn video ma seetaan ko keroog sama xol dafa tooy benn paa bi ñu arrêté woon mooy ki ñu doon wax ne dafa am lu mu waxoon tijaan yi te mu bi mu génnee nee na benn daggitu mbur dañ koy xëccoo keroog sama xol dafa naqari parce que ñi nekk ci kaso bi ay jeunes lañu. ay yaakaari ëllëg lañu. nañ leen may sens ñu bàyyi leen ñu génn ñu dem seeni i mbokk ñu daan seen doole. Mhm. ay xale yu ndaw am seen kàttan am seen doole mën a dem liggéey mën a dem bay ñu téye leen ci kaso bi def leen ñu tàncalikoo sa yaram sax day daw daf mel ni duñu ay doomu aadama. Mhm. te gis nga ñun nit ku ñuul li tax ñuy sonn ñun dañoo dañoo warmaalu doomu aadama. ni ñu war a téyee doomu aadama téyewuñ ko noonu. Mhm. ndax tey boo demoon Europe tey boo demoon États-Unis tey demuma fa mais damay seetaan seen i documentaire. tey soo demoon États-Unis da ngay gis koo xam ni prisonnier boo xam ni def na crime bi gën a garaaw. Mhm. te mi ngeeg néegam bu yaatu. Mhm. mi ngeeg doucham ci biir néegam mi ngeeg lalam mi ngeeg ay livre am mhm. mi ngeeg teleem mi ngeeg yëpp ci biir néeg bi. kon ñoom ni ñu warmale doomu aadama ñun jullit dañoo war a warmaal noonu doomu aadama mais jël ay xale yu ndaw tàncaloo leen ñii dañoo feebar ñii kenn xamul lu leen dal ñu bàyyi leen libéré leen ngir yàlla ñu dellu seen i mbokk parce que lii ñaaw na trop man nag may lu ci waay mën a dox nga dox ko ñu libéré leen ñu bàyyi leen. Mm-hmm. loolu laay ñaan. d' accord alors ñu am ci yenn kaay yoo xamante ne euh, daanaka lu touché ñu bëri ci euh, sénégalais yi la. Mhm. Euh, ma mën naa ci lim kaaw ku mel ni Ami Dia. Mhm. doon koo xamante ne ni ñu ngi ko teg loxo. Mhm. depuis defe naa léegi mu mu weesu at. ci koo xamante ne jigéen la. di ko toppee lu ñuy wax ay force spéciale ak. ay mbirum terroriste ak yu yu demee noonu. ban jàngat nga am ci ci loolu koo xamante ne nii te jii yaay la ay doomam ñu nga ca kër ga. ban jàngat ngay def ci loolu. jàngat bu bu ma naqari lu ma ñaawlu parce que kooku dama ko seetaan yaayam mm-hmm. damaa seetaan ay mbokkam mm-hmm. ak lu mën a am rek liñ ko jiiñ def na deful nañu dawal yërmaande te ñu génne ñu nekk ci kaso bi mooy comme ni ma ko waxee rek Mouhamed mm-hmm. gis nga kaso gor moomu ko gis nga kaso nit génn na fa baax nit génn na gën a yées nit dugg na fa baax génn fa yées kon nañu dawal yërmaande te xam ne yow yaa ngi tëdd sa néeg mu yaatu lool nga dem sa duus mu yaatu lool mhm. ngay dox sa diggu ëtt mu yaatu lool mhm. kenn cenewu la nañuy dawal jërmaane ndax ñee ay doom lañu te am na ñoo xam ne seen yaakaaru famille lañu ñu téye leen ci kaso bi ci mhm. ay lu ñàkk fayda yoo xam ne amul benn sens nañ leen bàyyi ñu génn ñu ñibbi seen bokk loolu mooy li rafet te loolu mooy li gën vraiment ñuy dawal yërmaande te xam ne ñun ay doomi aadama lañu te ëllëg kenn xamul sa sa ëllëg dañuy sóor loolu kenn xamul sa ëllëg Mouhamed ndax euh, tey wax mu yegg yàlla la neex tey soo tëddee yaa ngi xalaat ndax di nga yeewu mhm. soo yeewoo yaa ngi xalaat ndax di nga na ñuy sóor ñu tëdd ci kaso bi bu mhm. baax a baax a baax amet bërki démb damaa toog ma ne sama mag bi mhm. damay ñaan ci yàlla yalwaanu ma nag yalwaanu ma kenn damay ñaan képp ku am sa dërëm ku am sa dërëm te yàlla tax ngay def chaque vendredi nga dem ci kaso bi defal leen sax mburu ak chocolat yóbbu leen ko su fekkee yàlla may noonu sa dool loxo jot na sa ginnaaw mhm. nga togg say mbana ceeb mhm. yóbbu leen ko ñu lekk ko gis nga gis nga mburu mhm. ak ceeb nga di ko joxe kooku doo tëdd mukk nekk ci sukuraat bu yàgg billaahi wallaahi watallaahi lii lii di ceeb nga di ko jox doomi aadama ñu koy lekk ñi nag ñu ko moom tëdd mukk sukuraat sukuraat bu yàgg illaa yow mi di doo ko sukuraat may ñaan nag ñi nga xam ni dañoo am xaalis. Mhm. di ko denc ci banque bi te xamoo kañ la xamoo naka naka la lay fekkee. Mhm. xamoo dee ban moment lay ñëw si yow. Mhm. génnee leen seen alal bi leen yàlla may. ngeen di ci dimbali doomu aadama yi. parce que ñi ngi ci kaso bi ndax su ñu demee ba paa boobu ñu jàppoon dox ko ci affaire yu tijaan yi dañ ko tuumaaloon. mu génn ne benn mburu bu ndaw dañ may laaj ndax am naa ko te mburu bu wow lay doon. ñaaw na te boo xalaatee da ngay lekk ba mu des nga dem tuuri ci njamu mbaam. Mhm. da ngay naan sa boisson di lekk lu neex tëdd fu baax. Mhm. ñoom nag la ñuy lekk demeewul noonu nañ leen bàyyi xel ci ñi tëdd. parce que soo gisee arab yi raw ñi toujours dama koy wax soo gisee arab yi raw ñu ak naaru Mauritanie yi raw ñu. Mhm. loolu la ñu rawee dañuy dimbali ki nga xam ni soxla na ko. ki nga xam ni am na ci besoin. mais ñun sénégalais ñun mérito ñun ñun ñun tàmm ñu dimbali waate ñun daal nañuy am di pakati di yóbbu banque. est-ce que ko di ko lekk. Mhm. est-ce que xam nga ban góor mooy ñëw takkaat sa jabar lekk xaalis boobu. Mhm. est-ce que xam nga kan moo koy sa alal bi fa bi nga